bëgg wax ne kolo kolo roi ndax da nga war a xam ne Balla Gaye moo dundalaatoon lamb pa El Hadj Bekkaay Mbaye dafa wax wax ju garaaw joo xam ne bu ko Lamine Samba waxoon tey supporter Modou Lo yi dinañ di saaga Lamine Samba saaga yu metti pa Bekkaay Mbaye El Hadj Bekkaay Mbaye dafa wax mu ne Modou Lo warul bëre roi des arènes ak Eumeu Sène Balla Gaye numéro 2 dafa daan Modou Lo léegi mu ne roi des arènes bi war nañ ko xoolaat wax jooju nag ñun daf ñoo jaaxal ndax yow dafa mel ne dangeen bëgg a xeeb Eumeu Sène nu mu nekkee roi des arènes Eumeu seen dañ ko war a respecté dañ ko war a jox cër dafa mel ne da bëgg wax ne kolo kolo roi des arènes roi des arènes bi du moom li ngeen war a xam mooy am Eumeu Sène ni Balla Gaye nekkee roi des arènes nii Bombardier nekkoon roi des arènes noonu la nekkee roi des arènes ne Eumeu Sène du roi des arènes bu yóbboo nga dellu ginnaaw nga ne Balla Gaye musul nekk roi des arènes nga ne Bombardier musul nekk roi des arènes ndax Balla Gaye ci boppam démb rek am na benn interview bu mu ko seetaan waa seen buzz dafa ko benn interview bu bu yàgg vingt minutes ma seetaan ko moom mu ne 2005 la dugg ci làmb bi 2012 mu nekk roi des arènes nan la nekk roi des arènes mais moom moo daan Yékini Yékini ci boppam danaan génn di wax ne moom ñii duñu ay roi des arènes ndax moom roi des arènes waa CNG ñoo ko organisé woon benn genre tournoi la woon mu gañe ko waaye ba mu ko gañee moom moo doon roi des arènes après mu nekk fa di daan di daan di daan daan na fi Bombardier daan daan fi ñeneen ak ne Balla Gaye mën na ko daan moom bu ko Balla Gaye daanee moom ci boppam Yékini dafa choqué woon kon bu leen wax ne Balla Gaye du roi des arènes Balla Gaye moo doon roi des arènes. man dama ne woon. kii kenn dootul nangu roi des arènes tout le monde parce que man temps yooyu na woon Balla Gaye mu nekk xalé waye Balla baye ko Bombardier daal di ko foqati ci moom kon Bombardier mérité na nekk roi des arènes waye roi des arènes bo xamné da nga bëri won ay defet ndax yow Yékini daan na la ñetti yoon mais ñun xooluñu loolu ba ko Bombardier nekké kenn werantewu ko dan fi Modou Lo kenn werantewu ko Sène kenn yaakaarul woon ne dina daan Bombardier kon man Eumeu Sène mooy roi des arènes loolu kenn mënu ko dindi ci moom léegi nag ñu ngi naan CNG déwén ci ni ñuy waxee ni Moustapha Diop waxee dafa mel ne déwén CNG dafa bëgg changer yëpp yi mais pour man mu mënu ko changer ndax CNG du moom mooy organiser combat yi CNG du promoteur waaw te yenn mbër yi boo leen xaalis bu bëri ay VIP yi boo leen fayul yenn cash yi du ñu bëri te CNG yorul xaalis bu kon li war a def mooy Eumeu Sène nañ ko jox cëram te xam ne moom mooy roi des arènes tey te Modou Lo bu daanee Eumeu Sène mooy nekk roi des arènes kenn mënu ko dindi xam nga roi des arènes waruñu xool rek ne tournoi la wala kii dafa jóge ci defet da ngeen di xool carrière Bécaye Mbaye sax wax na ko nee na ah waaye Modou Lo ñetti defet la am mais ñetti yoon rek nga daanu te ñaari nit rek la daan muy Balla Gaye ak Bombardier ñi la daan ay roi des arènes kon yow mérité nga nga dem final ndax da nga war a xam ne Balla Gaye moo dundalaatoon làmb waaye ba Balla Gaye feebaree ñu ñu ko tooñ di dafa dem gàddaay kan moo dundalaat làmb mais Modou Lo moo dundalaat làmb ndax Modou Lo moo fi bëre am seen euh, làmb bu rëy Modou Lo moo fi bëre Bombardier final roi des arènes ñu daan ko moo Lo bëri fekk Lac de Guiers daan ko bëri fekk Gris Bordeaux daan ko Modou Lo dafa dundalaat lam roi des arènes bu ñu koy wax xooluñu rek ci défaite déedéet dañuy xool nit ki lu muy indi ambiance bu muy indi ci làmb supporter yu muy indi ci làmb Modou loo xoolal supporter yu muy indi stade de l'amitié moom Balla Gaye numéro 2. xoolal Balla Gaye nu mu ko respecté xoolal ambiance bi fu Balla Gaye dem jour làmb bi Nous ñu doon toppantee bi di rire, di de échelle mais en considération bu avons plusieurs fois plusieurs fois cinq dernières années yi mo victoire na combat roi des arènes roi des arènes ndax roi des arènes ci ñi diñ la bokk ndax mom fi mu ko aussi La bëgg mais Sen avons ndax bombardier ni ñu wax di dëgg bu bu daanoon Eumeu Sène lamb bi sax mën na dee. Eumeu Sène champion mérité na ko te loolu kenn mënu ko dindi.